ndax bi passé suñuy xool amul donc tey mu neen daal xaal tey d' autres yi na xam ne itam Bassirou Diomaye Diakhar Faye dina leen tab ba son excellence le président euh, par rapport ak li nga xam nekk moo di euh, ces euh, fonctions yi nga xam ni itam moom moom moom am na ko donc tey jii kër leen war a nommer Euh, ak tey yan poste leen di war a joxe euh, mu nek euh, question yi nga xamni ni itam ñu koy dal di laaj ni allant dans sens dinañ am luñ luñ si leer ci kanam tout inshallah par rapport ak li nga xam nekk le ministre bu ñu dénk li nga communication bi maanaam cadeau yor li nga xam nekk présidence bi. alors ginnaaw loolu mbokki spectateurs yi dañuy dal di exactement si li nga xam nekk moo di coow li ki nga xam ne que moo di euh, Mame Boye euh, Diao ñu daal di jàpp nii dafa daal di relier foofu si daanu que euh, Pastef ki na xam ne que moo di Mame Boye Diao nag mu ngi koy daal di weddi par rapport rumeur yi na xam ni itam am na nii dafa daal di dem foofu si daanu que Pastef Mame Boye Diao mu daal jàpp ni média yu bëri nag ñoo ko daal di annoncé ni ki démb son rarement. Euh, vers le parti euh, Pastef qui finit nekkoon responsable la coalition Benno Bokiaka. Yaakaar mi ngi démentir Bob de li nga ne information jàppale ni tam a euh, koy daal di ci compte X X tweet mu je tiens à démentir fermement les rumeurs de ralliement je n'ai pris aucun engagement en ce sens toute déclaration contre elle est fausse nee na musta que c'est ci li nga ne coalition Sonko ak ki nga xam ne Modi di Bassirou Diomaye Diakhar Faye chansons Sonko 2024 à Kabassiro 2024 nee bép information bi nga xamni ni itam da nga koy di wax ci walu wu mel amul te itam rewul dem nak ay information génnoon neen allant dans sens que ni Mame Boye euh, relation ak ki nga xam que mu Ousmane Sonko relation yi nga itam ñu koy daal di partagé euh, mu nek ay relation ngor waye itam relation yi nga xam itam amana ni ñu sepp nak ñu ci daal di xel bu baax baax baax et cela commencé na depuis euh, si nga xam que mu ba ñoom ba nekkee ci nguur gi relation ak Ousmane Sonko musu musu seen dara d'après les précisions justement euh, de Mamboy Diawo donc on Mamboy mi ngi que ni euh, dem fek ci li nga xamné que coalition 2024 euh, ay allant dans ce sens exactement alors ginnaaw loolu dañuy exactement si leneen di ki n'a que Modi Ngagne Touré Ngagne des Touré qu'il exactement

mi ngi dalal li nga xam nekk moo sénégalais ndax japp na itam euh, ce projet est arrivé au bon mains manam projet bi nag yegsi na euh, loxo yu bari un leadership patriotique une gouvernance transparente et une vision stratégique axée euh, sur la transformation et la valorisation des ressources naturelles nom nak soo leen di exactement euh, ki nga xam ne modi di Ngagne Touré mu daal di japp ni euh, njëgu li nga xam matière première yi yi nga xam itam du koy jëlee si wàllu gàncax gi dinañ ko dal di xoolaat fex itam ba daal ba daal gën a war yombal li nga xam ne modi askan wi ba tey ki nga xam ne moo di Ngagne Touré mi ngi ni des gouvernants patriotes qui mettent l'intérêt national au-dessus de tout manam ñom den dal di jiital li nga xam à ce que si le euh, aussi précise à que nous avons amal ben gouvernance transparente et responsable du secteur extractif madame

manam maanaam euh, waxtaan yi nga xamni ne itam ñu def diggante ak état bu Sénégal ak yenn si ay partenaires am fexe itam ba état nu si gën euh, si wu mel ba tey Touré ñëwaat aussi ci orientation de la production vers les euh, priorités du pays en en en industrialisation et indépendance énergétique donc nak ñëwaat na aussi ci li nga que mu position état bu am solo bi nga xamni dem fassé yéene ko daal amal en amont jëmale si Petrosen ak Sumisen batay ngeen dem Touré moom mi ngi daal di ko recouvrement de tous les redevances impôts et taxes dues à l'État. état maanaam impôts impôt ak euh, taxes bi nga xam ne tam état am na ko da nga koy daal di jëlee nii suñu mu gën a yaatoo du nga kenn euh, pour gën a ñooñal boobu la li nga xam nekk euh, secteur ba tey ngañ jëm turi aussi si acquittement des contributions au développement local et des obligations en matière du contenu local enfin le respect des exigences sociales environnementales et sécuritaires ma ni kon nag yooyu yooyu euh, kàddu yooyu la di yëkki ki nga xamne ne que moo di Ngagne Demba Touré daal di japp ni le projet est entre de bonnes mais manam mi ngi si loxo yu bax yéen ak ek dina def sen kéem katan ni bobu li nga xamne ne que moo projet bañ dal di décevoir li nga xamne ne que moo Sénégal yi nga xamni itam ñi dal di xaare ni euh, mu dal di yegg si à une solution yu permanente way itam ay solution yu structurelle euh, jëmale sa lu ko production minier beeg ak walu wunu mel en tout cas ki nga xamne ne que moo di nak dugal na si loxoom def aussi kéem kattanam ndax li nga xam nekk moo di mairie daal di gën a war a mën doon la ko daal le président Bassirou Diomaye Tiakhar Faye doon visiter ci si ko li nga xamne nekk modi Sangomar plateforme bi nga xamni tam itam fa daal di peut-être pour mu daal di war a saytu. nga jëmele si ko production de pétrole bi waaye tam itam fexe itam ba li nga xamne ne modi pétrole bi daal di war a yem surtout si li nga xam ne askan wi alors euh, donc euh, ñu daal di euh, jàll si leneen ginaaw ki nga xam que moo di Ngagne Touré sax sax ci muy daal di par rapport ak tolway bobu dañ nga xam ne que moo di MIR mm, donc sans plus tarder mesdames messieurs alors ñu dougal wala kon ñu enchaîner balaa ñu ñëw ci exactement la revue des titres. Euh, li gën a fës tey jii si li nga xam presse locale bi ndaa di ñëw si le nouveau directeur général bu port autonome de Dakar di ki nga xam nekk moo euh, euh, Waly Diouf euh, Bodiom nak mo dal annoncé que ni deen daal di amal ay mission euh, d'audi mission yoy nak la tax a jóg mooy daal di évaluer exactement la gestion des ressources humaines fof si doonu que li nga xamné que modi port autonome de Dakar en tout cas mu nek ben décision bo xam itam port autonome de Dakar jël nako ko si ñit ba di ki nga xamné que modi di Diouf Bodiom Waly dafa bëgg yëf yi gëna transparente waaye tam fexe itam euh, ba num ñooñalee exactement efficace et opérationnel bu port nom de Dakar ma kon nak euh, bobu de mission d'audit dénk nañ ko ben cabinet externe bi nga xamni tam itam mom moy dal di euh, sélectionner jaarale ko ci ben appel d'offre compétitif la ko tax a jug nag mooy di évaluer manam tok chambar nana xamni tam non non non noonu noonu lañ yore woon autonome de Dakar euh, lan mo si bax ak lan moo si bon ak faiblesse yi ak force yi lépp rek ki nga xamne ne que mu di euh, Waly Diouf Bodiang bëgg na ko daal di euh, déterminer waaye itam daal formuler ay recommandations yu am solo fexe tam ba daal di renforcer bobu de li nga xamne ne que moo processus alors en attendant ñu daal amal bobu yoy conclusion yoy de li nga xamné que modi di audit maanaam la si daal euh, toll ni nak donc le renouvellement des contrats à durée déterminée arrivé à terme et suspendu conformément à directive du euh, directeur général madame, euh, li nga xamné que modi contrat yi daal di jeex ji en attendant ñu daal amal yoy de conclusion jëmale ci li nga xamné que modi ak ki nga xam ne mu di Diouf mi ngi wo directeur sectoriel ak coordinateur yi ñu def seen kéem katanda di liggéey en équipe fexe itam bu audit yu daal koy war a amal suñu mu gëna a en prenant toutes les mesures nécessaires pour daal di yéexal wala kon pour daal di gaawal bobu dañ nga xamne ne modi di donc jappé ni tam ki nga xam ne mu di euh, Waly Diouf Bodian nag bëgg na daal di càmbar xol exactement failles yeeg forces yeeg faiblesses yi foofu si diwaanu Autonome de Dakar euh, contrat yi jeex nak fu mu toll nii balaa renouveler donc daal di suspendre

si alors dans hmm, ñeu exactement itam si euh, sortie euh, ki n'a xam que euh, peut-être Ousmane Sonko ñi sa déclaration de politique générale pour à l'Assemblée nationale le premier ministre Ousmane Sonko a mi ngi pour def sa déclaration de politique générale si ko pencub na Cependant, la situation est actuellement marquée par une attente stratégique maanaam fu mu toll nii nag ni euh, yëf yi ana naka lay daal demee foofu si ko proche d'Ousmane Sonko wuyoo si turu ki qui n'a ne que modi Abdou Sané moo daal déclaré si journal Bës Le Jour que ni euh, ki n'a xam que moo Ousmane Sonko narul def euh, sa déclaration de politique générale si biir assemblée nationale vu que